mën ngeen a ci seen chaîne YouTube ngir ngeen di mën di déglu euh, seen revue de presse ak Abdou Khadre Seck. Jotali point moo leen di jox ay xibaar ci tàng tàng bi Jotali point dali na jàmm ñu àndi xëyër yéen i kaay ñu xëyandoo yéen i kaay gi di l'info le témoin enquête vox populi ñu xëy di ñu xibaar nañu lu jëm ci coowlu parrainage li ci conseil constitutionnel ba léegi coow lu jeexagul la pënd bi wureeku la ndax am na lu toll ci ñeen fukk ak benn ci candidat yoo xam ne ñoom taxaw nañu temm ngir nag ñu dellu leen seen àq ak seen yelleef ndax ñoom dañoo jàpp ne ni ñu leen éliminé ci lu jëm ci wàllum parrainage bi tegiwul ci yoon loole moo tax ñoom ñu ñaxtu am nay kalaame yoo xam ne def nañu ko ca kanamu cour suprême démb doon nañu janoo ak taskatu xabaar yi ñoom nag li ñuy sàkku jamono ji maanaam leen di jox seen àq ak seen yelleef ba ñu mën bokk ci élection bi ñoom loolee ñu ko yi nga xam ne moom la indi ci kanamu conseil constitutionnel ñooñu ñëpp ay électeur lañu yéene kay gi de la témoin Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké

électoral la waaye tamit logiciel bi nga xam ne moom la doon jëfandikoo ca kanamu conseil constitutionnel logiciel boobee tamit war nañu ko càmbar war nañu ko gëstu xool ban logiciel la yéen kaay gi ñu xëy fekk fa Cheikh Bamba Dièye daan wax ne lu jëm ci wàllum saytu parrainage ge moom nag na ma ko jàppee sax muy ab loterie ba pare nag am na lu nekk ci ginnaaw maanaam ay lisu xul yoo xam ne am na ci ngir nag éliminer ay candidat loolee kàddu Cheikh Bamba Dièye la Aminata élection ya bu ñu demee du ñu fekk seen tur ci fichier électoral bi te du ñu a voté loolee kàddu yu Aminata Touré la daan wax ni ñi nga xam ne ñu waa conseil constitutionnel xam ne Macky Sall moo leen fa ñoom dañoo war a reconnaître dañoo war nangu erreur yi nga xam ne moo am ci mbir mi ñu daal leen di delloo seen àq ak seen yelleef collectif bi ëmb 45 yi ñu éliminé ñoom nag nee nañu danañu porter plainte lu jëm ci wàllum falsification ay parrain yéen a kaay gi di Vox Populi Aminata Touré nee na lu jege benn yoo xam ne nee nañu nekkuñu ci fichier électoral bi yéen a kaay gi di l'info Mary Teuw Niane moom daan ñi nga xam ne ñooy waa conseil constitutionnel ndax moom Mary Teuw Niane li mu jàpp mooy kele bi nga xam ne jox na ko waa conseil constitutionnel maanaam dañu ko remplacer indi beneen kele wala biir kele ba ñu dugg sa amal sa ay manipulation ndax moom Mary ñaan Niane na am na loo xam ne mënut a nekk moom amul benn njuumte boo xam ne def na ko ci ni mu bindee turam ci ni mu bindee ma ci ni mu bindee numéro électeur am ci ni mu bindee numéro d'identification carte d'identité am ak ni mu bindee date expiration bi nee na lépp dafa correct lépp jaar yoon amul benn erreur boo xam ne def na ko si te moom ba mu dañ ko ci fiche électorale bi moom Mary Teuw Niane nee na loolee mënta nekk te leneen li mënta nekk munoo am fiche parrainage munoo am tamit attestation caisse de dépôt consignation te ne ko ci fiche électorale bi nañu ma wax leneen man Mary Teuw Niane yéen a kaay gii ñu xëy fekk fa beneen professeur bu ñaxtu di Amsatou Sow Sidibé moom Amsatou Sow Sidibé moom nag ab dossier dañu ko rejeté maanaam dañu ko éliminer ndax dañu ko wax na ko caution ci kanamu caisse de dépôt consignation 20 décembre la ko déposé 21 décembre ñu daal koy jox attestation mu jël attestation ba ak yeneen pièces yi nga xam ne moom la conseil constitutionnel di laaj candidat mu nekk mu jël ko dem déposé ko nee na 9 yi nga xam ne moom la laaj nee na lépp déposé na ko li nga xam ne mooy attestation nag bii bàyyi ko caisse de dépôt bu ñu koy wër ak bu ñu koy seet nañu ko yéenekaay gi di évidence xëy duñu xibaar naa ñuy coow li am ci biir parrainage beek scandale yi nga xam ne moom lañ ciy dégg ndax élection présidentielle 2024 danañu ko amal ci àpp bi ñu ko jàpp loole ab laaj la boo xam ne waa évidence ñoo xëy ko laaj journal bi di critique moom li laaj nee na bisu élection yi ak coow li nga xam ne moom la ñu ndax askan wi danañu dem voté ji ci xel mu dal waaye tamit ci anam yoo xam ne anam yu leer lay doon yéenekaay a ne moom la ñu dëgmal moom Ngagne Demba Touré daan nay wax ne jamono ji seen bëgg-bëgg muy jëli fi ab système boo xam ne ba ñu fi nekkee ak léegi toll na si ñaari téeméeri at te nag jagaluñu réew mi moom Ngagne Demba Touré na bu baax a baax noppi gi nga xam ne waa Union européenne noppi nañ ko ci giraawaleek njombe yi nga xam ne jamono ji moo am ci Sénégal li am ci journal bi di direct news mooy kàddu Abbas Fall Abbas Fall li mu wax nee na yi seen ne moom la ñuy jëmale ci Ousmane Sonko loolee téréewul Ousmane Sonko bokk ci élection yi yàlla sunu borom a la yéene kaay gi la tribune xëy duñu xibaar naan ñu ñoo ngi jëm ci élection yoo xam ne élection yi wa doy waar a doy waar yéene kaay gi di ci xët mu njëkk ma ñu fekk fa Serigne Thiam di enseignant chercheur xelam màcc ci jëm ci wàllum yoon nee na Karim ak Khalifa Sall bu ñu bëggee bokk ci élection yi amande yi ñu war a fay nañu ko fay te Karim Wade bu weesoo 138 milliards yi lu jëm ci wàllum double nationalité loolee tamit bu ko Karim Wade amee mën na ko gàllankoor wax na ci lu jëm ci mbiri Bassirou Diomaye Faye daan wax ne Bassirou Diomaye Faye jamono ji éligible na maanaam mën bokk ci élection yi parti bi mu bokkoon ñu tas ko loolee tëriwut a bokk Bassirou laaj bi journal bi di mise point xëy duñu xibaar naan ñu mouvement des enseignantes et des enseignants jamono ji taxaw nañu teem ci ay jàngalekat yu jigéen ak ay jàngalekat yu góor ci biir réew mi yëpp ñoo nga fa maanaam ñoo ngi ci 46 départements yi yéene gi de tribune xëy duñu xibaar naan ñu Birahim Seck ma ngi tontu Macky Sall ndax njiitu réew mi di président Macky Sall fan yi ñu génn dafa yëkkati ay kàddu dal ci kaw journaliste Macky loole nag moo tax Birahim Seck daal di génn Birahim Seck nee na Macky jamono ji am na lu ko doy sëkk Macky li ko doy sëkk mooy mu wax ñu publier rapport Cour des comptes ba 2022 Babacar journaliste moom tim tontu na Macky Sall ŋàññi na Macky Sall ci yoon yi nga xam ne moom la koy tuddee ci réew mi ak hôpital bi mu tuddee Marème Faye Sall sa Fatick ndax Babacar dafa jàpp ne hôpital boobee am na ñeneen ñoo xam ne ñoo ko gënoon réew mi di président Macky Sall bëri na ñoo xam ne neexula na moo tax it Babacar bëri na ay menaces yu ñu ko def bëri nay saaga tamit yoo xam ne saaga nañ ko ko yéen a kaay gi de Le Quotidien xëy moom tim wax ci li Babacar Fall wax xëy na fësal si xëtam mu njëkk lu jëm ci wàllum propagande bi nga xam ne moom la defal Macky Sall ndax nee na Macky bëri na lu ko tuddee ci réew mi bu passé hôpital bi nga xam ne moom la tuddee soxnaam a bëgguñu koo dégg ak seen ñaari nopp waaye nag am na ay cas yu bees journal bi nee na am na lu toll ci fanweer ak ñeent ñoo xam ne jamono ji amee nañu coronavirus yéene kaay gi nee na El Hadji Mamadou Ndiaye bi nga xam ne mooy directeur de la prévention moom moo ko xamle nee na askan wi jamono ji nañu respecté mesure barrières yi mën ngeen a abonné ci seen chaîne YouTube ngir ngeen di mën di déglu seen revue de presse ak Abdou Khadre Seck. Jotali point net moo leen di jox jotali point net ay xibaar yu ay journaliste yu mën seen liggéey